boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo mbokki tay bi ginnaaw bu ñu sante suñu boroom di ko sant ci may gi ñu may wér ak kattan ak fekk gi ñu fekke weer wi nga xam ne pakk la ci ñun boo xam ne ñuy fegal ci mbugalum suñu boroom waaye danañu fegal ci mbu tiitu ëllëg ñu ko ci sant baax weer yi nga xam ne def ci lu baax moo ëpp doole ci def ko ci waneen weer weer bi nga xam ne ku koy woor suñ borom daan la fay ngërëmam te daan la fay yool bu bare bare kon ñu ngi ko ci sant baax fekke gi mu fekke ak may gi may kàttan ak wér ban koy taxawe di julli ci Seyduna Muhammad mi nga xam ne moo ñu jotal lii ñuy def di julli moom di julli ci ak njabootam ak i saabaam di ñaan yàlla dolli leer ak ngërëm ci Seyxunal Xadiim sunu yaakaar akuk njabootam ak i taalibeem di ko di ñaan yàlla yërmale ak njëgal ci mboolem jullit yi ak mboolem way dawle yi tey ñaanal yàlla ki nga xam ne moo fi teewal Cheikh mu Mountakha yàlla yàggal ko sunu kam waaye li mu ko bëgg liggéeyal mu eggale ko sañu ànd ko ak moom di ko ñaanal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa mbokk yi ginnaaw boo bu ñu fàttalee suñu bopp fàttali leen dénkaat suñu bopp di leen dénk ñu góorgóorlu ci ragal yàlla ak topp yàlla xam ne sunu borom ba ñuy bind ngir ñu jaamu ko rek moo tax mu bind kon nag suñu kàttan yëpp dañ koy def ci jaamu suñu boroom bokk jullit ñi nga xam ne ñu ngi ci weer yi nga xam ne moo gën a tedd ci weer yi mu ngi tàmbalee wàññiku ndax xaaj na lu xaaj nag ci wàññiku la jëm kon nag nañ gën a farluwaat ci li ci des yokkuwaat suñuy itte yokk suñuy jëf ci fukk fan ak juróom yi des ci weer yi koo xamoon amoon nga ay tàggante fexeel ba li des ci weer la nga góorgóorlu ci ba doo ci def genn càggante ci def lu baax ndax ñu xam ne alxamalu bil xitaami jëf mujj gaa ci ëpp solo na nan nan fexe ba mujj rafet lool ñu def ci lun man ak lu mun ci topp yàlla ñu fexee dab dabaatal li nga xam ne rëcc nañu ak li nga xam ne sàggan nañ ko nan ko dabaatal ci guddi yi ci suñu kanam ak bis yi ci suñu kanam ci ragal yàlla ndax yàlla kat yuhibbul muttaqina ku bëgg ñu ragal ñu ko ragal la kon nag nan takkaat laxasaay yu baax a baax ci guddi yi ci suñu kanam ak fan yi suñu kanam te dundal ko ci topp yàlla di dem ci jàkka yi di julli ji waxtu yu juróom yi dem ci taraweexi naafile yi dem di di ko ànd ak ca jàkka ya ak di dem ci jataay xam-xam yi di ko teewe lu mat a fonk la ci fukk yu mujj yi waaye ñu fonk itam itxaami taam di ci dimbalee ay ñam togg ay ñam di ko joxe lu am solo la ci weer yi lu mat di def la waaye di feeñal jàmm ci nit ñi lu mat a fonk la ci weer yi waaye di fonk wax ju neex la yinul kalaam di wax wax ju nooy bañ a ñagasal say wax lu am solo la ci weer yi rawatine fukk fan yi ñu nag yi ak juróom yi ñu mujj yi waaye di ci di ci baril jëf-jëf yu ay njëkk di ci baril looy dimbale waaye di ci baril looy def infaq di jox nit ñi al fuqara wal masakin ngay jël sa alal di leen dimbale ci weer yi rawatina fukk fan yi lu am solo kon ku ko mën di dimbale néew di doole ak dëkkandoo yi nga xam ne jege nga leen te xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw lu am solo la ci weer wi weer bëgg ci jokk bokk di ci seet say bokk mu waasaratul araam lu am solo la ci ngeen xam ne wa ma anfaqtum min shay'in foofu yuxlifuhu yàlla lépp loo joxe ngir jëmmam ji dana la wóotaatal lépp loola fuuf kon nañu bañ a nay ci suñu alal ji di dimbalee nit ñi bu baax a baax te xam ne lu mu jox suñu borom mi nga xam ne mooy joxe daal na ko delloo mbokk yi nga xam ne weer wi weeru màgg la suñu borom moo ko màggal lu sunu borom màggal nag kenn mënatu ko tuusal kenn mënu ko woyfal kon nag war na ci ñun ñëpp ñu màggal ko ni mu koy màggal nag mooy di topp yàlla ak jaamu yàlla ak taxaba di ko dénk buy dem yóbbaale ñu jëf yoo yu baree bari yoo xam ne mun bu ëllëgee daanañu seere ci jëm ci sunu boroom léegi ci sunu borom sunu jëf yooyu taxaw ne lii kat diw sàngam moo nu ko jëfoon ca weeru koor wa kon nag nan ko màggal baax ci jaamu yàlla ca fexe ba buñ ciy def ay yenn ñaawteef ndax bu ñu ko defee kat dañu ko rëcc fa tusbihu alaa maa fa'altum naadimiin boo lëgee dañu rëcc bu ci def lu loo wërta def da nga ko rëcc nan laabal sunu làmmiñ yi ci ay neen fexe ba ay waxi caaxaan duñ ci nekk ci weeru koor di wax ci bëccëg bi ak ci guddi gi lépp nag ñu xam ne woorkat doonul ne bàyyi lekk ak naan képp la xekkmatu koor mooy nga fexe ba fegal sa bakkan ci ay bànneex bi ñuy wax koor doonul bàyyi lekk waaye daa nga fexe sa bakkan ci lépp loo xam ne da koy dégloo ak lépp loo xam ne da koy dugaloo ci lu mur dugg nga fexe loola fekk sa bakkan loolu mooy xekkmatu bopp saw sariya bu bu ñuy wax ko bu ko bu ñu dële ko jublu ci lu taasibul anfus sellal bakkan yi bakkan yi bëgg nga not ko tàggat ko ba mu sell waaye taksirul axlaaq ak laabal jikko yi kon koor da ngaa waaye boo juree say jikko set laab sa bakkan sell boo gisee ñuy marloo ko ak xiifloo danoo bëgg borom alal yi ak ñe ñeem wërsëg xam li nekk ci xiif ak mar ba bu ñu gisee ko xiif mar ñu noonu laa dimbale kon loolu mooy xekkamatu koor bëgg nañ ci ko woor nag fun na la ci moom muy yéex a xadd li ñuy wax ay mbëste nag yooyu loolu du sunna da ngaa war a bàyyi ba fayaat li waaj a jot sunna la nga soog a xëdd xëdd la sunna la kon nag mut bàyyi ñu bëree bëri dañuy guddee reer rek daal tëdd nelaw te fekk ñu ngi bàyyi sunna su am solo li baax mooy demee ba ba fajaat di waaj jot waxtu boobu ñaan fukki minute des jàpp nga dem mos liggéey mos lu mu doonte ndox la loolu sunna la ci kii woor gaaw a dog bëgg na ni sam bala ngaa julli ci bis nga dog waaye bu jot soow rek dogal waaye bul nekk naan na julli ba noppeek na bàyyi ba noddu gi daanu yooyu yëpp sunna bëgg naan bëy dog ngay ñaan ndax waxtu woowu waxtu wu nangu la fonk sopp sunna la ci booy dog nga jàng ak ñaan war na ñaan boo xam ne képp ku dog nga jàng ñaan googee sunna la ci ko dog boo ko mënee nga doge rutab tàndarma ju tooy yooyu moom yombut suñ yi dëkk yi bay tàndarma ñoo ko am waaye boo sunna la si dag nga doge tàndarma boo amul tàndarma nag nga doge am ndox naan ndox waaye wuroo doge nag lekk rek leneen nakk bu nakk bu soobee yi wala bëgg a doge yàpp wala ceeb loolu du sunna bëgg weer yooyu weeru tabe la bëgg na nga tabe ci lool ku ne xam ne ne seexul xadim weer yi weer la woo xam ku tabe woon ndax li li li ko dikkal amul ci soxla waaye weeru koor nag ak weeru gàmm ñu ko xam ñëpp xam ne ne ci la gën a ci la daa gën a tabe wax ne ñu nekkoon ak moom sax boo amee itte dangay bàyyi ba weeru koor jege boo ko waxee itte ji lu mën doon léegi laajat lum doon daan la xanaa da ngay waayal gan bu tedd gi nga ne ko waaw itte ji lu mu mën doon mu jox la ko bu weer bi waay jeex ku ne xamal ne danaa naqar rek ndax loo ko wax mu ne tëluma la ndax gan bu tedd gi waaj dem kon weeru weeru tabel ak ku mën de ci joxe dimbale bu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a tabe ñëpp waaye weeru koor dikkee nag ci lay gën a tabe ndax weeru koor jibril da ko daa ko nafaral alxuraan ko jàngal alxuraan di ko fàttali ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng mënut a jàng mënut a bind ay nga xam ne jibril danaa dikk di ko nafar alxuraan ji dafa moo daa nekk ajwadu bil xayri min ar-rayhil mursal ngelaw ni ngelaw mag gaawe noonu la yonent bi gaawe woon ci joxe ci fan yi koor gi loolu yi moo ko nekk Jaabir ibnu Abdullahi radiallahu anhu wax na ne yonent bi sallallahu wax na ne jox na ci u'tiyat ummatii fi sanaram xamsan yëpp do yàlla jox na ci jox na sama xeet yi juróom yoo xam ne mosu jox benn yonent aw xeetam bu weeru koor taroo yàlla dafay xool jaamam yépp yi woor day génn xool ak bëtam te yàlla kum xool du la du la mbugalaat mukk kon nag xéewal googu weeru koor rek la yàlla jox bu jotee yan yàlla day génn xool jaamam yépp te kum xas ba xool du la mbugala si ñaareel ba xet boo wooree ba ngoon sa gémmiñ day am xet bu xaw a naqari caf ko gu naqari xat googu xat googu yi nag sunu borom nee na moo ko gënal réexul misk la ko ba gën a neex xetu ku xetu gimiñu ku xor woor moo moo moo ko gënal ci sunu borom moo ko gënal jëm sama sam ñetteel ba mooy malaaka yi guddi gu jot dañuy jéggulul ñi woor kull yow min walay la guddi bëccëg dañuy taxaw di jéggulul ñi woor ñeenteel ba yoon yàlla day wax malaakaam yi ne leen préparé leen ca sañse sañseel ma sama jaam bii ki doon wor yaa day wax malaaka yi ne leen waaj waaj leen bàyyal leen te te defaru bu baax a baax ndax sama jaam bii doon warkat mi ngi waaj a noppalu ci kooram googee moor moor ko noppal nag sama kër gi ak sama teraanga yi kon ki woor yàlla dalay waajalal ca nekk ay teraanga wax malaak yi neen defaroon defarul leen ko defarul leen ngir sama jaam bii doon woor kon nag moom itam loolu am solo woor weeru koor na la xamal ne yàlla ak mu lay waajal digal na malaaka yi ñu lay préparé ngir nga noppalu ci coono adduna juróomeel ba yi nga xam ne yàlla jox ko kenn ku xeex yonent mooy bu bu guddi gi mujj ci weeru koor nag sunu borom day day jégal ñëpp seen i ñu doon woor ba yonte ba xaloo am ko laaj ne ko ndax guddi googu mooy leen fi xadar mun na ko déedéet ndax gisoo ne képp kuy liggéey ba sa weer sab liggéey egg ñu war laa jox sa sab sa liñ la war a fay noonu la mel ku doon woor ba ko koog jeex li la yàlla fayee mooy jégal fay bakka kon nag mbokk julli yi nan jege góorgóor bu baax ci gën a jege sunu borom ci weer wi te di ko ñaan bu baax xaw fan wa xam te xam ne inna rahmatallahi xaribun minal muxsinin ñu xam ne mbokk yi guddi gu ne ci weeru koor juróom benn téeméeri junni sunu borom dana leen goreel ci sawara guddi gu jot ci weeru koor juróom benn téeméeri junni sunu borom dana leen ñoo xam ne sawara la waroon demee sunu borom dana leen goreel ci sawara soose bu demee ba ci guddi gu mujj ga nag day addisane li li li juróom benn junni yooyu ñaar fukk ak juróom-ñeent wala fanweeri feer yëpp saraat lu toll noonu mu ko gu ne guddi gu ne juróom lu toll ne lam gooree doon lépp gooreelaat lu toll noonu ci sawara kon nag weer bi wax dëgg yàlla ko ci góorgóorlu war a mën a mucc ci sawara ndax yàlla defana ci ay yombal yoo xam ne dana tax nit ki tàbbi ajana ñu xam ne itam guddi gu jot ci weeru koor yaqoolu xal min daaxin fa ujibuhu yàlla day wax ana kuy ñaan ma ma ma may ko la muy ñaan xal min taibin faamahu anhu awzaar guddi gu jot day am ku taxaw naan ana kuy ñaan ma may ko la muy ñaan ana kuy tuub ma jégu koy bakkaaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne qaala allahu taala te hadis xossi ne kullu xamali ibnu aadama lahu ila sawm fa inni li fa innahu li waana ajsi bihi doomu aadama jëfam yëpp moo ko moom ba mu des koor koor nag moom yàlla nee na moo ko moom moo tax moo koy fay amut limite lu ko neex lay fay dan la boo defee lu baax ñu fay fukk wala juróom-ñaar fukk koor nag yàlla moo lay fay rek moom amut amaru ko ab ab yéen bi saa saa wax ne ak koor ak pakk la pakk mooy loo lay aar ba dara kon nag mu ne bu kenn wooree ci yéen bu mu fo bu mu soow bu mu xuloo bu la nit waxee loolu naqare ba mu ŋàññe ba mu ŋàññe la ba mu bëgg xeex yow fal yaqul hu fal yaqul inni shaa'imun loola waaye wax loo naqare nee ko inni shaa'im man damaa woor rek wax ne kii woor am na ñaari mbégte waxtu dog ban tagalee yi nga war a dogee mbég moom a ngiy bég waaye nag bis boo dajee ak sa borom nag danga amaan mel ni mbég mu raw fo moom foofu ko nag ki li saa imi farxataan bokki jullit yi kon nag nan fexe bu wattu suñ koor gi ba dara du ko yàq dara du ko yàq ci wax dara du ko yàq ci jëf jëf ju ñaaw ba wax wax jooy bàkkaar nun fexe ba mboolem koor duñ ko ci def nan fexe ba sun noppi yi duñ ci déglu waxi jaaxaan duñ ci déglu ab jëwkat duñ ci déglu ab rambaajkat duñ ci déglu ab xatkat ba sun bëri ci xool lu yàlla tere ndax bët kat fitna ji gën a ci bët lay jógee fett gi nga xam ne moom la iblis di teg di ci jame ci bët la ko teg kon nag ñun fexe ba aar suñu bët yi ba di ci duñ ci waaye naan suñu lam yi itam nan ko wattu ba du ci wax ay neen duñ ci seere lu dëgg duñ ci jëw duñ ci rambaaj duñ ci ŋàññi kenn yëpp nañ ko moytu suñu lam yi boo ko fokk bu baax a baax ci weer wi jàng alxuraan nañ ko fonk di ko jàng bu baax ak di ko jàngulu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax gaa yu baax yépp de weeru koor dikkee dañuy fonk jàng alquran ndax saxa an rasulillah sallallahu alayhi qaal man qaraa harfan min kitaabillahi falahu asru hasanat yonent bi wax na ne képp koo xam ne jàng nga wenn araf araf mooy alif araf la laam alif la araf la miim nag araf woo ca def woo ci wane yow kon nan fonk bu baax ci weer wi jàng alxuraan bu baax ak di fekk fonk bu baax ci weer wi di fekk fekke jataay yi xam-xam yi ak jataay yi yi ñuy waxtaan ci diine allahuma rabba ramadana sallim lii ramadana wa sallim nii li ramadana wa sallimhu minni wa sallim nii minhu waj'alhu mutaqabbalan rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo